mais ñoom ñaar li ñu dem ba respecté seen kàddu ni ak Cheikh li mu raconté démb. Euh, wolof may wax janax daal su bëggee rëcc. day bëri ay pax. Euh, Pastef ni ñu leen najee woon nii rek lañ mënoon def pour génn ci. day wane aussi ne Ousmane Sonko xel mi ko yàlla jox ak gis-gis bi. parce que lii moom technique bi mu teg moom mosoo gis ko fi teg ci ci ci àdduna parce que yi nga xam ne moo ko fi njëkk a def. Mhm. bii da ciy bokk mhm. waaw. dafa am ci mbir fu may wax yoo xam ne. Mhm. Euh, biddaa yi Macky Sall def ci politique. Mhm. maanaam ay ñaawteef yoo xam ne mhm. def na ko fi moo ko fi njëkk a def moom Macky. ci histoire u Sénégal. politicien. noonu laa defalee tamit Sonko yi nga xam ne moo ko fi njëkk a def. xarañteef waa xarañteef. maanaam yooyu moom mooy li ñuy tuddee al itikaar nga xam ne moo ko moo ko fent ci terrain politique bi lii da cee bokk tactique bi mu tëral léegi euh, candidat bi reen yi sax na. Mhm. léegi yële ah fi nekk ni ñëw rek ñu dolleeku ci. Mhm. Sonko mooy kii bi jomaay mooy yëf yi rek ñoom ñoom buntu maanaam buñ najoon fii ñu jàll fa loolu rek la woon. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin mais man euh, euh, di déglu jomaay. bi mu dalee def discours ba léegi defe naa discours bi ma gën a dugg sama biir xol. mooy bi mu def Mbàkke. discours démb boobu moom. defe naa ne bu fekkoon ne ci discours dañ naan gagné na combat bi maanaam Mbàkke la gagné combat bi. Mhm. démb. Euh, xam nga Saa mhm. nit lépp looy def. Mhm. def ko pour gëm-gëm. bul ko def pour ngistal. bul ko def pour wut looy am ci nii ñi. ko gëm. même boo ciy wéet gëm ko. bi muy wax bi muy dem maa yomba. dem ba ci teen bi Cheikh Ahmadou Bamba doon jàppee. boobu xalaatul ne moom dina yegg si fii tey. Hmm. loolu daf ko defoon ngir gëm-gëm. Hmm. xam ne kii héros la. Hmm. boo xam ne du pour Sénégal mais pour àddina yëpp. mu bind fa la fa bind ne ñi ko indi woon fii dañ ko bëggoon a wéetal. toroxal ko ndeke dem ba mu dem maa yomb fa lay teddee ba faw xam nga loolu yow ku la waxoon ne jomaay mos naa dem maa yomba di topp trace Cheikh Ahmadou doo ko gëm. nit ku màgg noonu lay def. ba pare wax ne bi mu duggee kaso bokk na ci li ko dollee mën a muñ moog ñi mu àndal mooy seen xel dafa dem ci Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. gis nga soo amee maam bu baax. Mhm. te nga xam ne mooy sa maam te nga yëg ne mooy sa maam yow sa bon dootul mën a nekk. Mhm. maamu bañkat boo gisee nit ñi di euh, tubaab yi di jéem a effacer suñu histoire. maam yu baax yi c'est parce que dañuy bañ ñu def leen royukaay. dëgg waaw xam nga yow booy dugg ci kaso. sa xel di dem ci Cheikh Ahmadou Bamba mais kaso boobu dara mënatu laa jaaxal. dëgg la parce que da gëm ne ci dëgg nga nga nga jaar te am nga maam yoo xam ne fii la ñu jaaroon. Mhm. jamaay démb leçon boobu la joxe beneen bi euh, mu wax loo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko dañ ko ko koo laajoon. Mhm. ne ko fan la say taalibe yem wala say mbokk jul mu ne mu ne fu ñuy waxee laa ilaha illallah rek. ñooñu samay ñoom ñooy samay njaboot laa ilaha illallah muhammad rasulullah tey bari na koo xam ne danaan day fëgg dënam naan man murit laa murit laa te yàlla xam na ne affaire bi àddina rek la koy wute hmm. la Cheikh Ahmadou Bamba jàngale nekku ci nekkul ci ay ndigalam bàyyiwul ay teram mais comme xam na ne nit yi dañu bëgg Cheikh Ahmadou Bamba boo ko tuddee rek da lay ubbi yeneen buntu hmm. tax ñu jàppee ko noonu hmm. mais jël ko en tant que programme ci njub ci liggéey ci jom ci muñ ci sacrifice loolu la Bachir Diomaye wax démb Mbàkke moo tax discours boobu noonu dafa am solo lool lool lool lool pour man mhm. euh, ñi nga xam ne dañuy tontu di di di songu Diomaye man de fan yëpp maa ngi doon xaar naan Anta kër kañ lay songu Diomaye hmm. dama ko doon séentu parce que ñoom ñaar du du du jomaay du du jomaay Bassirou Bassirou jomaay mais ñoom ñan seen problème ndengaleer la. Mhm. Ah, waaw moom jomaay yàgg na am problème. waaw gis nga problème mu ndengaleer boobu. Mhm. da leen topp. te taxawaay bi Bassirou amoon ci ndengaleer loolu moo defar Bassirou. mbokk mhm. na ci li ko defar. li ko jox crédibilité. nga xam ne da nga jël komba bi en tant que gis ay baykat ñu new doole ñu ñuy toroxal. dégg nga borom doole yori milliards am ñëw imposer leen doole. nga taxaw défendre loolu bokk na tey nit ñi gën a gën cee bëggee bëggee Bachir en tout cas man personnellement Bachir benn yoon laa ko mos a gis ñu toog waxtaan ma posé ko ay question daaru mooti la woon hmm. ba léegi gisaataguma ko mu toogaataguma ak moom mais ci ndengaleer problème mu ndengaleer bi ci laa xam ne kii c'est un grand homme hmm. kii góor dëgg ngi nii parce que nit ku baax doo fekk fu ñuy néewale nit doole ngay ah. noppi waaw te la mu def ndeysaan xeex ba jeex tàkk waaye. waa waa ji recevoir la nga mënoon mënoon faa jëlee alal. waaw mu ngi noonu. Mhm. Mhm. léegi loolu jàppoon naa ne euh, campagne bi ku tudd Bachir di nga tudd Ndingler. Mhm. te loolu bokk na ci liy gën a daaneel liy gën a daaneel kottu ñoom Anta Babacar. problème mu Ndingler leen topp ba léegi. Ndingler boobu noonu dañul ci bopp nit moo tax moom. naan qui est qui est Sonko qui est qui est Diomaye Diomaye mooy Diomaye bu ndengaleer mhm. yow yaay laajte Diomaye mais xam nga kuy ndengal xam nga kuy Bachir sa baay xam na kuy Bachir mhm. parce que taxawaayu góor ba mu taxaw histoire dootu ko fàtte mhm. yaa ko gën a xam xammee nga kuy Diomaye xammee nga kuy kuy président Ousmane Sonko donc yooyu moom ay waxu kii la rek dégg nga nga ne léegi ko moom xam na Anta Babacar yow ñaari tur nga boole moom ñaari tur la boole ci wax bi mu wax rek moom daanu na bu yàgg te yëgu ko waaw donc yooyu noonu euh, en tout cas Bachir Diomaye mm-hmm. man de li ma jot a gis nii man de su su daanewul gars yi premier tour mm. dina ma jaaxal lool lool lool lool lool beneen bi aussi man aspect bi ma gisaat ci Bachir mooy ñun kaw kaw yi mm-hmm. mais dañ ci gis suñu bopp parce que da nga naan sénégalais bi si boppam. moo ci gis man man xoolal mais mhm. xam nga en tant que ba kii kaw kaw. Mhm. dégg nga nga xam ne ñun ay tool ak i machine ak mbay mu métti mi nga xam ne dañuy exploité yeewuñu. Mhm. surtout ñun Saalum Saalum ñu ne ñun ay dof lañu. dégg nga mais Bachir tey. waaw gis gis man dama gis ne Bachiru. dafa am image yu. sénégalais pur sang quoi waaw mais mais xam nga xam nga candidat boo xamante ne solul costume takkul cravate dara benn waaw yu bëri tey image ceddo daal la dégagé candidat <laughs> xam nga léegi dafa am ci candidat yoo xam ne candidat wu jaay teer jaay jaay taar mais jaay taar gaa ngi bëgg a jeex la nga am yeneen candidat yoo xam ne candidat wu yaay may ma ñeex lañu mm-hmm. am candidat yoo xamante ni candidat tubaab lañu mm-hmm. ak tubaab bi moo nekk ci ñoom mm-hmm. mais Bachir ñëw nekkaat kaw kaw fini yaa ngi dégg taxaw di wax na yaayam moo daan jaay dugub. Mhm. di jaay ñebbe. Mhm. di di di naan su ma sañoon yeewoo njaga ñaaw sama. sama xar yeeg sama ginaar yeeg sama béy yi. keroog bi ñu ko waxee naan insuffisance euh, de riz. mu ne man cere ma gën a. waaw dama bëgg suffisance de cere. waa ma insuffisance de cere. yaa ngi dégg wax dëgg. ñëw taxaw dégg amul. ku pare pour dem ci tool yi. Mhm. dégg nga même baykat boo xamante ni yow. Mhm. dañ na la bët seddi na. Mhm. dégg nga te ruujogoo. xam nga kooku doo fa tala nekk di noos. réew mi ki koy tabax ëllëg profilu jomaay lay doon. parce que daf nga gis ne ku waaj pour liggéey. ponkal mi dégg nga mu ngi leen koy wax fan yii kilifa gu mag. Euh, kii bi. Euh, pro ab ah, ah, kii génie lu noo ko wax. génie politique pro. déedéet ci ci wolof. ndaa njaama gi ndaa njaama macha allah ndaa ñaama ji nee na leen bu ñu jëlee réew mi fa la liggéey bi di tàmbali mhm. victoire dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. mooy bu ñu defee suñu premier mandat ba pare foofu la victoire di feeñee mhm. li ñuy xaar liggéey la loolu mooy yëf yi donc man discours boobu noonu moom laa mën a dégg yeneen yi ci des yëpp daal ay détails la ak loo xam ne affaire fiiraange doomu aadama la doomu aadama su la yàlla mayee lu mayu sag maas boo jàppee ne duñ la fiire wala du duñ ci am lu ñëgg ñëgg xol loolu ku yàlla dimbale dëgg-dëgg moo ko mën mhm. donc faaw mu jàpp ñu koy jéem a sànni ñu koy jéem ay xeet parce que dalee na raw mhm. man daal jàpp naa li ma gisagum nii ci mbooloo mi ak discours am bu baax bii mhm. discours am bu cohérent bii nii premier tour dina leen tourna bu daal bu gañewul premier tour dina ma bett lool mais grand Thiam bu ngeen gisee Amadou Ba li muy traîné ci foule démb defe naa ne Amadou mu ngi woon peut-être mais mais gis nga loolu aussi. man damay dégg journal yi di wax li muy déréglu ci ful nañu bàyyi tappale. Mhm. waaw mais loolu. non non non non non xoolal nañu bàyyi. damay posé sama question bàyyi la waaw waaw balaa balaa sa kii sëñ Thiam di ñëw. ñun waa Saalum lañ Kaolack lañ dëkk. Mhm. dama woo samay rakk ma ne leen waaw yéen Amadou Ba moom mbooloo mi indi Kaolack dégg naa bëri na de sama waa ji ne ma de sama rakk ji ne ma. Mhm. man de gis naa ñoo xamante dama leen laaj ne leen fu ngeen jógee <laughs> ne leen maire yéen ngeen fu ngeen jógee mm-hmm. mun na ko ñu ngi jógee kawur kawur waaw kawur kawur ca dëkk ya sori la mm-hmm. est-ce que kawur mm-hmm. nekkul ay gannaaw wàkk nguna da ngay romb kër ma jibel di dem est-ce que nekkul sax ci anglais bi da ay kawur kawur lañ leen roñee xoolal kawur lañ leen duyee ci ay njaga njaay léegi yow buñ bu ñu fekkee ñii dañ leen duyee ay kawur ci njaga njaay xottil leen ay piis ñeneen ñi jëlee leen ndukkumaan xotti leen ay piis ñeneen ñu jëlee leen ñombaato xotti mm-hmm. leen ay piis mm-hmm. donc kon loolu mbooloo moom du mbooloo mbooloo dëgg dëgg mooy mbooloo mi nga xam ne du du njaga njaay mm-hmm. xotti lu ñu leen piis mbooloo dëgg mooy mbooloo mi Sonko di yor looloy mbooloo leneen lu fi waay wax dangay ngay tappale Amadou Ba amul benn mbooloo boo xamante ni jaaxal na àddina bi ay oto yu bëri ngay gis ay njaga njaay ay piis gis maire yi ñu leen di kii ñu sol seen ah, mbubb yi kii kisi gis naa ci ay maire man moom gis naa ci ay maire moom jom jomaay dee ci xol bi jomaay la xam nga loolu tamit nax sa bopp la mhm. nañu bàyyi di duufal amul ba bu dajalee ñetti nit ñu naan mbooloo moom dajale loolu fan la am mhm. mais nañ dañuy respecté nit ñi waay mhm. ah mbirum mbooloo Amadou Ba yéen waa élite patriotique bi non ñun moom yéen yéen waa élite bi ak seen ak ak ak yéen it xam naa bëgg naa ñëw sax yéen ci seen taxawaay yéen ci ci campagne bi mm. mais bi ngeen gisee Amadou Ba li muy <laughs> dajale nii imam moom nanguwul ne Amadou Ba day dajale moom. macha allah sunu borom daf la defal sa xel bu leer daf la defal xel bu leer. ndax ba nga jëlee ni mbooloom Amadou Ba. tëkkale ko ak ñun te ñun duñu moroomam. Hmm. heureusement. doon na def mais imam commune bu ne président 10 millions la ko joxe.